tey lundi 27 juin 2022 ñu ñëwaat ak yéen ci yéen kaay comme ni ngeen ko amee chaque jour ci ànd journalu sunu làmb di ci ànd ak journalu record waaye di ci ànd ak waa Vice FM ci Gàmbi Mbirkilaan FM ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di jëmoo ak Babacar Sarr maa ngi leen nuyu bu baax a baax di nuyu seen auditeurs yi di nuyu sa doomu ndey Abdou Dramé di nuyu ñuy xel lu TV point com yëpp di leen ñaanal semaine jàmm di ko sàkk ci yéen. ñu ñëw ci journal sunu làmb journal sunu làmb tey Ama Baldé la xëy fësal fësal tamit ki nga xamante ni moom moo di Modou Xarañ Lo le roi des mooy xëy di wax ci boobu la combat la nga xamante ne wax na ko ci daal lu yéeme yéeme moo di combat boobu moom képp ku ko tëggal di nga dem fa nga xamante ne moom moo di Ndunga Sine loolu nag Abdou Bakhoum moom moo ko wax andi na révélation yi tax mu wax ko boo jëndee journal sunu làmb di nga ko fa fekk combat bi nag ak lu mën a xew jëm dingu si nekk dem feneen si yow ak lu mën a xew waaye promoteur yi dinañ ko tëgg waaye beneen combat bi nga xamante ne jàpp na promoteur yi pare nañ pour tëgg ko ba léegi mu taxaw wala boog mu ngi avancé bu baax a baax mooy de Ama Baldé ak ki nga xamante ni moom moo di Bombardier moom Abdou Bakhoum nag nee na combat boobu promoteur sori na baax a baax te jàpp na ne boobu la combat dina taxaw 200 pour cent bi taxaw na waaye bëgg nañ mu gën a taxaw bu baax a baax moom ñoom waa Pikine moo tax Père de Gaulle moom gannaaw ba ñuy wax Mohamed Ndao Tyson ak Bombardier ne moom moo di Baboy gisaguñ leen ci boobu la 200 moom moom Père de jàpp na ne dina leen récupérer indi leen ci li nga xamante ne moom moo di 200 pour cent bu Pikine bi ndax ñoom ñooy lépp Pikine moom Père de Gaulle moo wax loolu ndax nee na Tyson ak Bomb ak ki nga xamante ne moom di Baboy lépp li nga xamante ne waroon na leen rek waroon na leen seen diggante waa Pikine def nañ ko indi leen ay ndam yu rëy rëy rëy rëy moo tax moom Père de Gaulle jàpp ne moom cent moom deux cent pour cent mënul dem sans Mohamed Ndao Tyson ak ki nga xamante ne moom moo di Baboye Père de Gaulle nag nee na dina ci xar tànk tuubee ba ñaar ñaar ñooñu daal di ñëw adhéré ci li nga xamante ne moom mooy association boobu noonu bii moom combat la bu nga xamante ne amateur yëpp ñu ngi koy waxtaane mu war a dox ci diggante Franc ak Gris 2 journal sunu lamb ñëw na ci yaatal ci li ñu wax ne nag Franc ak Gris 2 bokk ñëpp di waxtaane moom Abdoulaye Dembélé nee na Gris moom pare na pour satisfaire li nga xamante ne moom mooy demande amateur yi moom Gris 2 jóge ci ndam digganteem ak ki nga xamante ne moom moo di Abdou Diouf Franc jóge ci ndam digganteem ak ki nga xamante ne moom moo di Sokh bu ñu xoolee seen palmarès yi ñoo tolloo ci ay combat ku ci nekk def nga onze combat Franc def na onze combat onze victoire Gris 2 def onze combat dix victoire ak benn défaite mu mel daal combat boobu amateur bi ñu koy waxtaane Gris 2 moom pare na ndax Franc pare na loolu bu yàggul dara dinañ ci laaj li nga xam ki nga xamante ne moom moo di Franc waaye dinañ tam toog ak ki nga xamante ne moom moo di Gris 2 tamit waxtaane boobule combat ndax pare na pour jàmmaarloo ak ki nga xamante ne moom moo di Franc Abdoulaye Dembélé nag moo xëy bind boobule article ñu des ba léegi rek ci journal sunu làmb ak kiwal mi nga xamante ne war naa jàkkaarloo ak Tidiane fay seen ndaje nag defoon nañ ko samedi passé mu mel ni war nañoo jàkkaarloo ak fële ci arène nationale bi le 3 juillet Assane Ndiaye borom Baol production moom moo ko tëgg ñu def ba léegi ci journal sunu lamb ak combat bi nga xamante ne jàmbaar production tëggoon na ko doxoon ci bébé bis ak ki nga xamante ne moom moo di Baba Jaxal bébé bis mi nag ba mu amee ndam na ak ne moom moo di Abdoulaye Dieye mu wax ci combat bi la tax mu jël ko ak yi nga xamante ne nekkoon na ndax waroon na koo jël na mu déborder na mu aborder li nga xamante ne moom moo di combat ba loolu yëpp bébé bis ñëw na ci ke tëggoon combat wala boog structure ba tëggoon combat ba seen écurie moom la bébé bis mi nekk waaye ñëw na ca ñu laaj ko ñu gisuñu benn yoon mu ànd ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waaye écrit boobu noonu mu tontu ni dafa préparé wul foofu combat bi waaye nag ba mu duggee ci ci arène ba conseillé nañ ko ku mel ni coach Lato ak ñeneen ñi nga xamante ne jege woon nañ ko jox nañ ko ay consigne wax ko bëreel nii bëreel ne ba mu ci jógee nag am na ay appels yoo xamante ne jot na ko ñu ko doon félicité waaye nag moom bébé bis mi moom journal sunu làmb wax na ni loolu laaj na ko ni dégg naa da ngay quitté boobu waaye daf ko dëggal ni écurie jàmbaar moom bu saison bi jeexee dafay joge moom Bébé Bismi gannaaw ba mu fa defee deux combats benn victoire wala boog trois combats deux victoire benn défaite moom Bébé Bismi nag ma ngay waaj a yëkkati li nga xamante ne moom mooy ay valisam daal di joge ci écurie boobu dem beneen écurie ñu jéem ba léegi ñu des ba léegi rek ci journal sunu làmb ak ki nga xamante ni moom moo di moom moo moom moo di Francisco Jeeju bi nga xamante ne moo génnoon àdduna ci combat soq ak ki ne moom moo di Franc denc nañ ko keroog samedi Franc teew woon na boobu la denc waaye nag ki nga xamante ne moom moo di Doudou Diagne Diécko président des amateurs moom tamit teew woon na boobu la denc ñu des ba léegi rek ci journal sunu lamb ak Garga Mbossé ak Yékini Junior mi nga xamante ne journal sunu lamb moom jàpp na ne ñoo ngi dans le flou moom daal kenn xamul ci lan la nekk ci ak lëndëm wala boog kenn xamul ci maanaam dëgër nañ mayi waaye di leen wax ne nag Yékini Junior moom mi ngi Sénégal ñibbisi na waaye Garga ba léegi rek ma nga fële nga xamante ne moom moo di États-Unis moom ak doomu ndayam Ramdan Papa Sow ak ki nga xamante ne ak écurie journal Sunu li ñuy wax ne ba léegi ñu ngi xaar li nga xamante ne moom mooy génnam mu njëkk ci écurie jàmbaar ba gannaaw ba mu ko sampee atum 2019 ba léegi daal wala boo ko 2018 boobu ba léegi gisuñu Papa def li nga xamante ni moom moo di sorti bëre ba combat jeex mu daan wala mu daan waaye ak lu mën a xew ñu ngi koy xaar le 6 novembre incha allahu rabbi ci digganteem ak ki nga xamante ni moom moo di Siteu kaw gurneem Baye Mandiaye combat bi taxaw na kan moo ko tëgg Modou Baye Fall mu war am le 15 août incha allahu rabbi boobu la combat yaakaar naa ne combat lay nekk kaw ak ki nga xamante ne moom moo di Baye Mandiaye mu ngay taxawal nag li nga xamante ne moom mooy ay combat préliminaire am ndax taxawal na combat Karbala ak ki nga xamante ne moom moo di Sa Thiès bu cinquante loolu yëpp mu war a nekk le quinze août incha allahu rabbi arène nationale loolu yëpp ki nga xamante ne moom moo di Baba Diaw wala boog ki nga xamante ne moom moo di moom production moom moo tëgg boobule combat ñuy jeexal journal sunu lamb ak combat bi nga xamante ne amoon na démb fële ci arène national doxoon ci diggante Ada Fass ak ki nga xamante ne moom moo di qualifié numéro 2 mu mel ne Ada moom lancé ba mu nekkoon jógu ca benn yoon ma ngay def ay jaloore ndax daan ki nga xamante ne moom moo di qualifié numéro 2 ci 2 minutes wala boog 3 minutes 28 secondes ci la Ada Fass daan na ki nga xamante ne moom moo di qualifié numéro 2 mu mel ne ambiance ba bari woon na ay bëri yu rëy tamit. amoon na ci boobule combat mu mel ni Ada Fass instant bi mu ngi ci mu ngi ci douzième victoire ci wala boog dixième victoire am enregistré na ko démb ci diggante ma ki nga xamante ne moom moo di qualifié numéro 2 mu mel ni qualifié numéro 2 moom am na ay défaite yoo xamante ne instant mi ngi toll ci 4 wan nañ ñu ndongoloo daan na ko tigo tigo xaritu yaayam daan na ko kéwal daan na ko Ada Fass daana na ko waaye tamit ki nga xamante ne moom moo di gàmmu gi daan na ki nga xamante ne moom moo di Coly Faye numéro 2 mu mel ni combat spécial boobu doxoon ci diggante Koña ak Boy Pire Koña Boy Pire moo am ndam ci kawam waaye Koña nag contesté ba ni def ni nga xamante moom moo di Ada Fass ñëwaat ci nga xamante moom mooy bilan mooy mooy nga xamante moom moo amoon foofu 3 minutes 28 secondes Ada Ada Fass mi nga xamante wane na boppam ci digganteem ak Coly Faye numéro waaye Koña mi nga xamante mu ngi continuer ci ay difficulté journal sunu làmb ñëwaat na ci li ñuy wax trois combats trois victoires mel ni saison la bu nga xamante ni saison boo xamante ni bu neex a neex la ci ki nga xamante ni moom moo di Ada Fass mu mel loolu lañ leen andiloon mbokk yi bàyyi a nekk si ni ah, mooy waa xew-xew làmb ji groupe Lutte TV du leen fàtte ah Toutien Sarr Omzo bu Garga Serigne Ndiour bu Osodo Serigne Ndiour bu Balla Gaye 2 Serigne Ndiour bu Bathie Seras ak Moussa Ndoye ñun moom ñëpp ñu ñu ngi koy bégge bu baax baax di ko ziare di nuyu Mor Jaxate waaye dama fàtte ki nga xamante ne moom mooy moo Ndiaye directeur Serigne Mado doomu nday Liru Diane ak Mansour Kassé dama fàtte ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Thiam Ablaye Sarr doomu nday Liru Diane ma faal ñoom ñëpp ñu ngi leen di bégg bu baax a baax di leen ziare di nuyu ñuy bàyyi xel tv point com yëpp mu mel ni LP Events ak Petit Production moom dem moom dóor nañ fu kawe kawe kawe kawe di leen ñaanal rek affaire bi continuer ñu ciy gën a gis seen bopp Fallou Colobane Galzo ak ki nga xamante ne moom mooy Fallou Touba Galzo doomu ndayu petit promoteur maa ngi koy bégg bu baax a baax a baax di ko ziare waaye nag du ma fàtte ki moom moo di Jami Gueye séeri Médoune ah moom mi nga xamante ne nee na chaque combat mu jënd code ci seen affiche point com Jami maa ngi lay bu baax baax a baax a baax a baax a baax di leen ziare waaye du ma fàtte ki nga xamante ne moom moo di Jeylaane Pouy